Euh, ñu naan tentative de retrouvailles euh, de la de la de la. famille, famille socialiste de la famille socialiste. mais loolu aussi ma expliqué la euh, beneen pàcc bi ñoom ci opposition la ñu la ñu nekk. il faut nous expliquer ma expliqué la tuuti cette logique là. ma expliqué la tuuti moi je fais partie quand de, toutes les grandes inst euh, grandes instances du parti socialiste. Euh, loolu ñu ngi ko njëkk gën njëkk dégg dans la presse ñu ne Khalifa Sall Barthélémy Diaz Jean-Baptiste Diouf seeti nañu Aminata. dañ ko certifié wax ko lan mooy seen tànk ak lan mooy seen mëbët aujourd'hui je sais que yenn waxtaan yi sax jiitu woon na loolu aujourd'hui je le sais mais je sais ba eh, kii la ci boolewuñu dama ne ñuy seeti en tout cas aminte kenn seetu mais ci diggante nag wax nañ ak man am na ñu ma seeti sama kër je vais laisser parce que moi je veux pas mettre tout dans sur la place publique am na ku ma seeti sama kër am na ñu ma woo et cetera euh, pour wax mbëbët bi lan la donc ces retrouvailles la ah mais ñun parti démocratique la ñu mooy mën a tey boo taaloon sa oto ñëw maison du parti da nga bëgg doon militant socialiste dañuy jaay carte chez nous on l'appelle la vente permanente des cartes de membres donc on est ouvert mais loolu dañ koy waxtaanee suñu instance Aminata Mbengue Ndiaye bi ñu ko se dafa xaar ba son premier scène bi ñëw déggoo ko ci presse gi boobu la xaar elle en a parlé elle a rendu compte elle a rendu compte diggante bi ay sage def nañ ay sotti le, le mouvement des sages du parti et cetera donc parce que loolu aussi nit ñi yàgg nañ ko yàgg nga dégg ay ténor à l'époque mu lay wax euh, en tout cas voilà moom bu mu daan wax retrouvailles cible loolu nit ah parler un peu de, de ce parti qui était dispersé qui a fait un peu sa faiblesse souvent nit ñi bu ñu la naan waa Benno daf ñu néewal doole dama leen wax souvent attention parfois aussi suñu choix moo ñu néewal doole parce que bi ñu jógee par exemple assemblée dama koy fàttali de vingt députés à quinze mais cinq différents moo doon cinq députés dans les départements qui nous avaient quittés donc dañu xoolaat suñu biir kër aussi. donc waxtaan bi am na. oui seet taxaw na ci am te rendre compte ñu waxtaan waxtaan boobu nag ubbeeku na ñu ngi ci kawam c'est-à-dire amul loo xam ne décidé nañ ko mais euh, tey les libéraux ñu ngi waxtaan dans benn. mais da ngeen di compli mais attends euh, mënu leen rejoindre ñooñu wala ñooñu. rejoindre ñun parti la on n'a jamais quitté. voilà parti soxna soxna si dama bëgg nga. fixé définitivement pour l'histoire Alioune Ndoye 2004 la commencé politique Alioune bi mu commencé politique 2004 biir parti socialiste la dem 2004 ak fi ma toog nii di wax ak yow Alioune Ndoye mësul génn parti socialiste kon ku dem ñëw machin man maa ngi ci parti socialiste mooy sama tànneef ba keroog may soppi loolu may def leneen te ak liberté parce que may dugg parti socialiste ak liberté laa fa duggee du dëgg donc loolu dama la wax fii débat bi échange bi toll foofu la toll tey mooy que ni Euh, nit ñi waxtaan nañ ak njiit ñi ah ñu ngi waxtaan ak ñeneen donc j'espère euh, normalement pas j'espère waxtaan moom dañ koy continuer dans les essences xool chacun li mu bëgg ak nan la mën a nekk. mais en fait man incompati incompatibilité bi moom ma ci moom a ci poser problème parce que xalaatuma ne euh, Barthélémy Diaz xalifa Sall. moom fu mu nekk tey. ah moom fu mu nekk tey ñoom ñaar ñooñu fu ñu nekk du opposition. waaw ñun fu ñu nekk. Euh, bloc euh, ex majorité pouvoir mais fi ñu nekk actuellement là opposition. waaw mais vous êtes waaw Benno. Ah, Benno est dans voilà yéen a ngi ak waa Benno. dama ne la Benno yow da nga jàpp ne bu dellu si di am. ñoom ñooy dellu si. ah mais man de dire loolu da bëgg ñu daje créer leneen. non yow da nga ne le parti socialiste n'a pa bougé yow bougé woo. vingt ans léegi bi ñuy daje nan lay mel du parti socialiste. waaw non non bu bu fekk si li am ñoom ñoom ñi demoon ñoom ñooy ñëwaat. ñooy dellu seen kër. ñooy dellu si seen kër. Ah, loolu laa gis. xalifa euh, Sall Aminata Mbengue Ndiaye. Khalifa Sall socialiste euh, la mas a woote. waa mais euh, cohabitation boobu nan lay demee un Barthélémy Diaz qui a des ambitions pour. deux mille vingt neuf Barthélémy Diaz ak man nañoo xaw a bokkaate mais Aminata Mbengue Ndiaye ak Khalifa Sall li ñu dund ci politique man dund ma ñoom. donc il ñu yóbbu affaire yi fu mu nekkul Khalifa Sall li mu dund politique ak Aminata Mbengue Ndiaye man dund ma ko ak Aminata Mbengue Ndiaye te dund ma ko ak Khalifa Sall Barthélémy Dias dund ko ak Khalifa Sall dund ko ak Barth mais euh, Serigne Mbaye Thiam mu ngi doon positionné wu pour le contrôle du du parti non dama <laughs> soxlaa moo xam ma ko <laughs> ah, euh, yow da ngay dëkkal nit ñi foo xam ne euh, Ablaye Wilane tamit le contrôle du parti daf ko intéressé Ali Mané hmm. même chose Barthélemy Diaz man lu ma intéressé Barthélemy Diaz yow dégguñu la Barthélemy Diaz mu ngi positionné wu. Euh, pour sûrement pour deux mille vingt neuf sénégalais ñoo ñu seetaan. yow ah? xam nga ni dégguloo euh, dégguloo nu mu tutti fu Serigne Baye Thiam ne day positionné pour jël parti. mais vous avez vos problèmes internes vous avez vos dissensions internes. man de aw ma dissension moom par ah. exemple. waaw mais mais mais mais mais Serigne Mbaye euh, ak ñoom Aminata Mbengue Ndiaye y a des dissensions internes ak ñoom Ablaye Wilane ñoom Alimane c'est-à-dire yow da ngay affirmer j'ai du affirmative. waaw mais nga am ay éléments. Euh, Ali Mané day contester Serigne Mbaye Thiam. ça c'est au niveau euh, localité. oui oui Serigne bëgg na contrôler. Euh, le parti socialiste Abdoulaye Wilane jàpp na ne kenn gënu koo yelloo euh, contrôle parti contrôle parti socialiste xalifa euh, Sall peut-être qu'il peut se représenter il aura 71 ans en en 2029 Barthélémy Diaz pointe Euh, voilà son son son bout du nez il serait Bien, un parfait candidat pour 2029 nan ngeen di régler loolu yëpp nan ngeen di régler suppu kànja boobu yëpp yow da ngay togg suppu kànja bàyyi ñu toog suñu suppu kànja bàyyi ñu toog suñu suppu kànja bu ko naree peut-être que yow da nga noppi mais tu as des ambitions mais euh, ban mbindeef moo amul ambition donc bëgg nga contrôler parti socialiste yegguma foofu dama ne kan moo amul ambition boo ne peut yow am ngay ambition bëgg nga jël le contrôle du parti socialiste bëgg nga diriger le parti non moi j'ai ma démarche politique c'est pas un journaliste moom mi piégé comme ça mu ñëw fi naan ko bëgg naa. non c'est pas piège ah lay laaj rek da fi mu ne da nga bëgg a asseoir <laughs> comme xam nga da nga affirmé affirmé nga pour Wilane man je suis son camarade de parti Wilane ne m'a jamais dit ça maintenant nag peut-être que bokkuma ci ñi mu war a convaincre Serigne Baye ne m'a jamais dit ça ñi nga lim lay wax de ak kanate nga lim Khalifa Sall waxuma loolu Khalifa Sall suñuy ñu ngi ko def Makka. te loolu bokkoon na ci te xam naa li ma tontu woon parce que man boobu à l'époque y avait beaucoup de comme nii rek xalifa Sall on allait en congrès man màkk la ma Khalifa Sall ne ma Alioune Ndoye man la le porte secrétaire général ne m'intéresse pas je ne serai pas candidat moo tax bi ma ñëwee fii bu ko nit yee man la yéen leen di xeex xeex bu amul ñu foog ne dama koy jàppale donc ñi nga wax ni kenn waxuma ko ci mais yow ci sa avenir politique par rapport au parti socialiste lan mooy sa namm te sama amélie politique damay jiite réew mi may mënoon dóor fay. da nga bëgg raw loolu. ah da nga bëgg a jiite réew mi dama ne xanaa bëgg a jiite kon nag yem ko foofu jàll ci li ma bëgg wax. Sénégalais yi da nga bëgg a jiite réew mi 2029. pourquoi nga ma jox échéance. pourquoi du nekk dans deux ans wala dans. non dans deux ans c'est pas possible on est <laughs> nañu liggéey. bu ñu ah, liggéeyul. Ah. <laughs> <laughs> may mën a